waaw dañoo jógee Touba Njaañ ñëw uy si Serigne Mountakha ci bis bi te xam ne nun Baye Fall yi am nañ cër amoon nañ ko waaye gën nañ koo am bi Sëñ Muntaxa toogee ndax kenn ku ne jaar na fi waaye nag surneb Cheikh Ibra moom Sëñ Muntaxa nu ko indil ñu ngi koy ñaanal soo borom yàggal ko fi tawand ak wér barke maam Seera ndax fa faju aajo ak jaam ñi moom moo tax mu woote bis bii nii tey ñi ci biir na xamaguñ ko ci ginnaaw ci après la ñuy xam ñu ngi koy ñaanal saa borom yàggal ko fi lool te barke maam Cheikh Ibra waaw moom fas yéene ànd ak moom ci 24 heures bi moom bu doolee sax ñu jël fi mu dañoo tënk bu ne woon fii ba at mi jël sax duñ fi jóge fii la toog ndax amuñu lu dul moom. Cheikh Mahmadul Muntaxa yàlla na sama borom dugg law fanam te wéral ay jërëm ba leen bëgg liggéeyal sëñ Touba suñu borom kàttanal ko dooleel ko tam ko ñun mu ngi koy ñaanal noonu sëñ Amdi Modou Mbenda di xalifa maam Seera Fall moom it di suñu borom guddalu fanam te wéral mu yàgg a wóor te ne yàgg a wuñu bis moom dañ ci sant mu woote ko bëgg noo dimbali bëgg dimbali euh, murit sëñ Touba yi Baay Faal rek ak jullit yàlla yi loolu rek tax mu woote ko noo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàgg a wóor te ne yàgg ko teewe di ko ñaanal tawfeex bi barke maam Serapha incha allah fas yéene naa ànd ak moom fépp ci 24 heures bi ba mu génne ñaareel mbooloo mi rek ñu yeewee ko bu soobee Serapha. waaw incha allah pare nañ ñun démb leen ko maam Serapha démb di sataat suñu taxaw bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fa lool barke maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal mu yàgg fa lool di siyaare tamit suñu kilifa yëpp waaw lii dafa réussi ñun amuñ fayam barke maam Cheikh Ibrahima waaw damaa kontaan barke Cheikh Ibrahima damaa damaa barke Cheikh Rafa damaa kontaan lool lool di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ñaanal sëñ bi mu dum benn mu yàgg fi lool barke maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal suñu buntu si kër Cheikh Rafa suñu kilifa di ko ñaanal mu yàgg fi ak njaboot yeeg rakk yeeg doom yeeg ñëpp barke maam Cheikh waaw ndeysaan dañoo wuy si woote bi ñëw ci bisub Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima bi nga xam ne amuñu lu dul moom muy maam Cheikh Ibrahima tey jii ñu ñëw ci bisam Sëñ Muntaxa Mbàkke woote ko xalifa général kullu murit woote ko tey jii ne nañ ko sant le Cheikh Ibra ñu ñëw fi wuy si ko ñu tudd ko te yàlla yëpp ak soppe yi ñu ngi fi tey képp ku tudd ko te yàlla yaa ngi fi ñun waa xidmatul Cheikh Ibrahima Fall bu ndaw bi nga xamante ni chaque le cinq ñu koy doxal ñi ngi fi xidma bu mag bi le premier bi ñi ngi fi ñoom sëñ mu day de ñëpp a ngi fi góor yàlla yëpp a ngi fi tey ji ci bis bi gàcce ma sëñ bi fas yéene nañu ànd ak moom ba mu jeex takk ndax ñun sang bi lu mu bëgg ci ñun da koy am bu ne ñu faatoo fii tey fi la ñu faatoo ba Seexul Xaddim ndax ñun moom rek la ñu liggéey si rek moo ñu ñor ba Sëñ Tuubaa Basiru lay Tuubaa saxaw ga waa ñi ngi sant bu baax di am tawfeex si daje bi ñu daje fii ci ndigalul Serigne Mountakha Khalifa ñun nag ñi ngi teew si teewaayu xidmatu maam Cheikh Ibrahima Fall bu ndaw bi Touba Cheikh ga moom lañu teewal fii tey di ci sant Cheikh Ibra bu wér nag di ci sëriñ Serigne Mountakha mi nga xam ne moom moo woote bis bii ñu si sàkku ngërëm bu baax a baax. fas fa si ànd ak mbooloo mi ba bis bi jeex tàkk ban am ci ndigalal sëñ bi ñuy yeewee ko. Fall bi maa ngi lay ziare bu baax di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di ziare sëñ Mountakha Mbacké suñ borom yàggal ko fi bàyyi ko fi ci suñ kanam bu baax a baax bañ liggéey bi ñu bëgg a liggéeyal maam Cheikh Fall ñu ko bu baax a baax a baax ci kattanu yàlla ak jëmmi maam Cheikh Fall waaw wàllum kafe gi moom Baye Fall bee ko yore moom Baye Fallu maam Cheikh Fall bi nag laa tudde sama bopp te moom laa doon di ñu di ko wax Abdou Lahad ju Sikru la waaw maa ngi siyaare bu baax di siyaar kullukum waaw fas yéenee liggéeyal maam Cheikh Fall rek ci kattanu yàlla ak jëmmi maam Cheikh Fall ci kattanu yàlla loolu fas yéene nañ ko di la ñaanal jàmm defal lu gi fan ànd ci bi jaay Seydina Muhammad lii nga bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla ko suñ borom agaleel barke maam Cheikh Ibra Fall loolu rek lañ fas yéenee doxee